mbokk yi première journée Baol production la première journée de l' espoir bu ñu xoolee lii xam ne espoir juddu bu ñu xoolee tey ci stade bi jaaxum de suñu nday joor di dajeek jaraaf yuusu suñu càmmoñ attention kor na ko jaam kor na ko dóor na ko uppercut eh yuusu ay jaraaf ay ñëw xa njaaxum ak jaraaf man jaraaf ngi jéngu non Assane sama xol tey mi ngi door a féex attention. jaaxum ba woon na ko fiile sànni ko mais jaraaf yu subañ ne eh, ana bot bi eh, ay waay waay waay oh def na njaaxum dana def njaaxum dana def njaaxum njaaxum am na jaraaf yuusu jaraaf yuusu njaaxum am na njaaxum def na njaaxum ci kaw jaraaf yuusu doomu Bawol suñu nday joor moo jugee écurie Sakku xam-xam Paul Maurice de Plateau la jugee moo nekk suñu gauche ñu ngi léewtoo ñoom ñaar tey stade bi fees na lii namoon nañu ko gars nag il faut ñu teel ñibbi parce que suba lundi la attention Paul Moise mi ngi koy bëgg a jeexal daanu non def na erreur daf ko bëggoon jongale tol ko doomu Bawol tëdd ci mu daanu ah malheureusement pour toi Paul Maurice ah c'est ça il faut nga def erreur pour daanu. arbitre sifflé na diggante El Hadj Gaynde ak Mbaye Balla El Hadj bëgg sa waajur la jóge mbay balla écurie Rebeuss laa ilay lallaa tey stade bi tey stade neex na de yow yow kontaan noo yow jommi woo tey mais taara tey jaaw jommi woo ci ci ci stade bi oh, naa Pape Maguette stade bi day xeeñ sax cuuraay cuuraay attention mbay balla mi ngi door El Hadj Gaynde xeex na nañu léegi ñoom ñaar El Hadj Gaynde ak mbay balla tey stade bi xoolal lu nekk ngi fi tey cumikaay xeeñu fi tey ay cuuraay ñooy xeeñ ci stade bi barki yàlla laa leen wax nii eh, teg na ko dënn bu ma ko yaay eh, laa ilaha illallah war na ko ndombooy war na ko ay eh, tay la illallah allah naa kiraa wa faraja allah naa kiraa wa faraja hëpp hëpp hëpp hëpp rajax laa dégg hélas gay na daan na ko oh quelle prise arbi si mee na mbay guy gi suñu nay joor jon kara suñu càmmoñ Mbaye Gouye Gui dem na jëli ko Mbaye gi Gui dafa bëgg a rapidos combat Kara mi ngi koy dóor Mbaye Gouye Gui Mbaye Gouye Gui ak John Kara Mbaye Gouye Gui ak John Kara Mbaye Gouye mi ngi ko topp rek John Kara ngi sànni ay gauche ay droite ah Mbaye Gouye Gui xoolal li ngay def de yaa ngi topp saa rek dóor wàcc mën na ci am de dóor mu wàcc mën na am ci combat bi am déet su ma juumee jàppante leen percute jon ah, John Kara dóor na léegi benn uppercut may guy gi jàpp na mi ngi dóor uppercut jon eh, John génn na eh saf de saf de ñaar ñi dañuy xeex dañuy xeex eh waaye dóor mu daanu waay eh waaye réel rajax réel rajax John Kara dóor na pénétré ko eh jàppante ñoom ñaar attention may guy gi daan na ko oh daf doole daf ko gën a diis. daf ko jàpp wéeru ko imposé ko doole mu daanu. arbitre sifflé na Bébé Diène suñu ndeyjoor mi ngi dajeeg Leuz eh xeex nañ teel nañoo xeex Leuz jàpp na ko Bébé Diène bañ na mbaa dóor mu wadd du am dóor na eh eh astafurla astafurla yee yee waa Bébé dina def lii waa Bébé dina def lii booy su mejul allahu akbar oh, oh oh daanu na waat ah daanu na ñaari yoon. <laughs> 19h mooy 7 minutes Boy Pouye moo ñu wan ginnaaw mi ngi jugee écurie Cheikh Mbamba di daje Pago Jackson bu écurie Pape Diop Boston moom moo gat ngemboo ngembu lu weex Boy Pouye moo ngemboo ngembu vert vert blanc la xaw ma daal xaw ma daal couleur bi daal mais am na lu vert daal ndigg bi yëpp vert la waaw mooy ku ñool ki daal waaw boobu sax moo gën leer ñu bañ a wax couleur yi parce que couleur bi doo mën a jàpp exactement lan la eh Boy Pouye bu na moo ko sut loxo booy puy door na Paco Jackson eh ban Paco Jackson la mais kii dafa ñuul ah booy puy dooraat na daf ko jàpp di door de da ngaa tee di door Jackson soobu na yee yee jàpp na ko wéeru na ko daan na ko allo naa kii naa wax Faraja moo ko sut ëpp ko doole lii sut la ëpp doole xam ngeen ne kii nag kii nag yéen tamit ah xool leen moo yéen. arbitre sifflé na Baol Production beneen combat eh, combat boo xam ni combat bu neex la tamit si ñoom ñaar combat bu important pour ces deux lutteurs jàppante nañu ay loxo yooyu eh. fii la na ko Ronaldinho génn na dem na ba ci saaku yi ah, baax na ay ndaaraan lañ bu ñu jàppantee rek nga gis clé bu ñu jàppantee nga gis technique dëgg eh door na ko Bébé Bismi ngay door mot <laughs> kii mooy Ronaldinho yow Bébé Bismi doo xool li ngay def. Ronaldinho mi ngi ko topp pour bëreeg moom Bébé Bismi Ronaldinho moytul de moytul coup bi de moytul loxo yi ah, ah jàppante nañu daje nañu ñoom ñaar Ronaldinho loxo goos am na ngemb eh, eh, eh. ah Bébé Bismi mi ngi ko bëgg a xar Dinho bañ na Bébé Bismi jàpp na ngemb Dinho mi ngi bëgg a dindi loxo goos bi waaw xam na ne fi mu ko jàpp baaxul moo tax loxo ndeyjoor bi mënu ko yóotu ba am ngemb moom it parce que kii dafay yokk ci rallonge Eh, la ilaha illallah jongale na ko léegi Ronaldinho tamit gauche bi jàpp na ci ngemb bi nga koy poussé Bismi trois avertissement la am Ronaldinho deux mais eh, Bismi mi ngi door ci faar yi Ronaldinho bëggoon na ko bët léegi moom tamit mi ngi fayu la ilaha illallah yenu na ko door na ko ci suuf defal ndànk defal ndànk defal ndànk arbitre sifflé na dernier combat préliminaire 19 heures 40 minutes xool leen stade bi rek booy xoolal ma stade bi ba tey benn supporter génnul ci stade bi. Tonnerre nee na tekk di ko déglu bilaay Tonnerre bii bu dalee sa kaw eh, ah, ñamante na ñoom ñaar ay ay xeexu nandite la ñuy xeex eh, mbaa kenn du wadde ay eh, jàppante nañ jàppante nañu ñoom ñaar xeex nañu xeex bu gaaw ta sew. jàppante ah doy gis nga lool attention laa ilaaha illallaah oh def nañu ay rotation ñoom ñaar ñëpp attention ñu ngi xeexaat xeex bu sew ñoom ñaar Petit Niang dem na songu jëli na ko door na droite Tonnerre mi ngi bëgg jeexal combat bi daf ko bëgg a abrégé Petit Niang téye ak loxo gauche di dooree loxo ndeyjoor booy xool Tonnerre moom itamit jàpp na mi ngi encaissé les coups jongle na ko waat eh tegal na ko chaise eh eh eh eh eh Petit Niang Petit Niang def ni eh, Tonnerre daan na Petit Niang Petit Niang yaa def action mais da nga toog def action teg fes eh daan Tonnerre am daan Tonnerre am daan